takade jojo loba jiba ko faade be mogna yugo ara lo sugna jo takade jojo loba jiba ko faade be ma te yugo ara lo sugna jo takade jojo loba jiba ko faade be ma te yugo ara lo sugna jo takade jojo loba jiba ko faade be ma te yugo ara lo sugna jo takade jojo loba jiba ko faade be ma te yugo

orange ak Léo Wade orange daan na Léo orange daan na Léo lii lan la nii tamit Malika général général ak Boy Ba général daan na Boy Ba général Malika daan na ko général da lay daan waaw ma ne préliminaire yi gaaw nañ de ay quelques secondes la gars daan gars yi mu demee nii. Ablaye Bopp. allo. Adama Mbine Sara Ablaye Ngom si mbokkama Adama Mbine Sara moom moom moo ni woon gannaaw Adama Mbine Sara war na ko ndombo Adama war na ko ndombo Adama Mbine Sara daan na Adama daan na Ablaye Ngom si mbokkama lii lan la nii. Gane combat dan jovan dan moo féete à droite mi ngay bëri fii ci Fatick le premier janvier 2022 ndeysaan yal nañu yàlla defal atum jam atum xewal atum wërsëg atum sutura defal ko mbooleem julit ndeysaan defal ñu xewal aduna ak alaxira tawfiq bi rek bu ci mooy ñu gudd fan ak wër ak yaram ak ya salam gan Diofane waaw waaye di bëgg sama tooma Serigne Saliou Faye borom borom soob borom naa la fan su gan Diofane bi waaw waaw gan waaye sama grand Waly Ndong borom Diofior ziar naa ko Gan jofana ngay beure wala ñu wax gan Seras wala Ibou Senghor numéro 2 ah waaw Dan eh Dan Gane Dore dan Gane dan na borom soo dem bi daan na combat Modou Faye ordinateur mbëru Ibrahima Diouf bi ndeysaan ak Youssoufa Senghor Youssoufa Senghor moo ñu woon ordinateur jàkkaarloo le champion d'Afrique le phénomène ordinateur le champion de tous les temps Modou Faye Modou Faye ordinateur moo féete à waaw wisu Youssoupha Senghor à droite waaw waaw sama grand Arfa fai. Sambor mbër Modou Faye bare. ngi bëre waaw waaw grand Aliou Faye mama naa la grand Mamadou Faye le gendarme borom la ouse dir selle bir yi paas grand Idi ziar nako. ko waaye Ibrahima Ndong nyari ñaari tey eh, maa ngi sa dëkk fii Fatick waaw waaw Lamine sama doom day tey mu nga jilaas ziar naa la doom yaay Ndindy Fall ibulul tey ñoom ñëpp ñu nga jilaas waaw waaw Modou Faye ordinateur Youssoufa Senghor Modou Faye ordinateur moo ne woon gannaaw you. ordinateur daan na ko ordinateur daan na ko laa ilaaha illallah cey lombe tuule temps ordinateur Pape Maron sakku xam-xam Saliou Thioune Saliou Thioune Pape Maroon Sakho xam-xam Saliou Thioune moo nu woon gannaaw Pape Maroon Sakho xam doomu Joyin bi ndeysaan ñuy bëgg waa Joyin di bëgg waa Diouroup ndeysaan Saliou Thioune sama dem ci Saliou Diop Faye borom Diouroup bëgg naa la waaye Arfan borom Diouroup Ndundur waaw ah, waaw ndeysaan ñu jàll ba duudam ndeysaan waagaan ancien couloir bi waagaan Faye duudam ziar naa ko Pape Maron dem kan na Pape Maron jàpp na tànn Saliou Thioune Pape Maron Pape Maron Saliou Thioune Pape Maron tànn na Saliou Thioune Maron tànn na Saliou Thioune eh, eh sakku kham-kham, sakku kham-kham, kham-kham xejul ci dara sakku. Doudou Sané njool bumbur, Mbour Ibou njool bu Mbour Doudou Sané mënu woon gannaaw Ibou njool bu Mbour Doudou Sané Ibou quart de finale poids lourd fii ci Fatick Ibou Ndiol moo ñu woon gannaaw ah, waaw waaw ad bin saara ad bin yaalaan itam yaalaan a gën yee léegi ad bin yaalaan waaw waaw beneen combat bi si ginnaaw gan Jofaan la ad bin saara ad bin saara moo ñu woon gannaaw Doudou Sané Doudou Sané Ibou Ndiol Doudou Sané Doudou Sané Doudou Sané Doudou Sané daan na ko Doudou Sané daan na ko Doudou Sané Malika Orange 2 Général moo ñu woon gannaaw waaw Doudou Sané ma fa Doudou Sané ma waaw général Malika Oras 2 général Malika Orange 2 Général Malika Rugangit mawa palagi Rugangit mawa palagi Panas diam na advertisement Wow wow General Malika Orange general. Général Malika buub na ko moo féetee à droite Hann Binsara moo féetee à gauche Hann Binsara génne na Gane Hann Binsara génne na gan waaw waaw parce que dafa am trois avertissement combat général Malika Doudou Sané général Malika moom mooy borom ngembulu weex li Doudou Sané moom mooy borom ngembulu vert li waaw waaw demi-finale poids lourd fii ci Fatick le premier janvier 2022 ndeysaan Doudou Sané doomu Diofior général Malika doomu Malika ah waaw ndeysaan di bëgg waa Diofior sama xel dem ci Ayda Murit Mansour borom Dubaay bëgg naa la ah waaye Massiré Diédhiou siyaar naa ko Doudou Sané Malika Doudou faqat na général Doudou Sané yéen na la ilaha illallah Dour Sane daan na Général Malika mooy dix minutes la ilaha illallah demi-finale point laissé Moussa Kalim moon bu moon bu Fatick moom mooy borom ngeen bulu bulali Moussa Kalim moo féetee à demi-finale point laissé Moussa Kaline Moussa Kaline daan na moon Moussa Kaline daan na moon Fatick la ilaha illallah Moussa Kaline daan na moon eh, eh doomu Mar Fafaco bi Moussa Kaline dem na final Pape Maron ordinateur Modou Faye ordinateur moom mooy borom ngeen lu ñuul li Pape Maron moo féete à xam-xam bu joyin ordinateur mbër Ibrahima Diouf bi machine ne sinig wala machine ne ñaaxaar le champion d'Afrique le champion d'Afrique Modou Faye ordinateur le phénomène de tous les temps Modou Faye ordinateur bëri nañ ba am mi-temps ñëwaat

waaw mar na am na avertissement ak bisimilah waat na combat bi Pape Maroon am na ñaari avertissement ordinateur am benn. Amatör mü herif? ab maroon mënu woon gannaaw ordinateur 真的结婚了。 கடுவாகஞ்சு Nacer Pap Maron Arbitrário de Hernandes.

ordinateur jàll na demi-finale poids lourd Modou Faye ordinateur ak Mbine Sara ordinateur moom mooy borom njëmb lu noir li ak Mbine Sara moo féete à jaga salaan may bi na jërëre ak Mbine ordinateur waaw waaw léegan ñaan le mojaan kumba e jaga salaan ay ordinateur ordinateur ordinateur an bin sara ordinateur takk na ko waaw waaw ndeysaan i bëgg waa ko ba ngay séeréer waaw waaw sama gara Arfa Faye siyaar naa la waaye Ibrahima Ndang siyaar naa ko Aliou Faye Mamadou Faye la gendarme ordinateur daan na Admin Sara ordinateur daan na Admin Sara adino ano aninum de adino non non Moussa Kalinga o get confiance uh-huh. o gari tam mafrel wana ɗota siñof wene inoro ndangan we ka inor fimla tigi laga mhm. to ñom naxay koy ñom ne a ah, gidma we mbaraxama cin rek i leya dene jegim david den content na trop leya dene ñom ne xa njangin inchallah jege na wago leyam no sec fe ren no eh? sec fe ona wago leyam no sec fe na commencer um ngeen moom gidmam tino roga paax tapapolum tego sec fe ren a sec fe ne a trapo ɗak jega jegum mais final wa final wam jef leng mais waga hani mo afrique i aca i gidman hanum taxa jega problème merci beaucoup gollo o yaranka waxo na jam mana jam ba yam gollo yaranka ah yaranka yaranka gollo dekte bo abla diouf abla diouf o gar beke fiya final abla diouf bama geru joal fadiouth joal fadiouth o gar final ni debeke o toro final anano non andi dum ko vraiment andi dum andi dum non non dum sere to yo non mo sere to ala talim ta amene mo sere to yo dawa bola amna sekte o ren non alhamdulillah ko santa mo do pa ko geru final ko dum ah non esa maso ko beta presse toi wo so ko beta ah maso ko beta ko geru premier final yo xana premier final wo so ko amre le stade de ni non ma miñam ma ma e me ko nda miña ko ma o drapeau mo fiya rek wadu acap acap pa ale ka koy nongal ma tv fo ko pa ah, ah. xana na non tamit kenn ah, bu na xam ko moo féete à lay prise moo féete à a ɓegul naam ɓe songor ma africane e yamba yamba final poids léger ndeysaan fii ci Fatick le le premier janvier 2022 waaw waaw lay prise lay prise lay prise lay prise Moussa Karim Moussa Karim daan na lay prise Moussa Karim daan na lay prise Moussa Karim daan na lay prise daan na lay prise la ilaha illallah Moussa waaw sant borom bu baax a baax. waaw ñu ngi gisee tey saa mi seeram daa tàng rek. mais noonu ah. gëm. waaw ah. lamb la ñu bëgg lamb la ñu choisir pour suñu métier. oui waaw waaw yaa ki nga xamante moom mooy Modou Faye ordinateur. Ah. ñu gis ne ren saison bi ren Modou Faye ordinateur Doudou Sané combat choc la loolu noo koy loolu noo koy dundee. rek di ñaan yàlla rek mooy ma ndam ci kawam quoi ay ndaw lañu. dañuy jéem ñoom ay grand lañu. waaw dañuy sant borom bi tamit. di ñaan bu baax a baax lan lay wax supporter waaw euh, nañ gën a yokk jàppante bi rek waaw ñoo leen di bu baax a baax ñu gën a yokk jàppante bi gëm-gëm bi itamit gën a sax kontaan si ñoom bu baax a baax. ah Doudou kon ñu ngi lay jaajëfal. ah ok jaajëf waay. boo dafay ordinateur ziar nañ la. waaw ah, di la ziar bu ah, tey noo gisee lamb waaw te yàlla dogal nga egg si final yaag Doudou Sané waaw bu doon loo xamante ne saison bi ren Doudou Sané ordinateur loolu duo la combat soog la léegi loolu noo ko dundee non du combat soog waaw ah, du combat soog waaw ah. dañuy compétir rek dañuy compétir waaw waaw Doudou kii ordinateur combat bi fu mu toll combat bi combat ay waaw combat bi waaw le 13 février la quoi incha allah ordinateur lu mu wax fan ses supporters yi waaw di leen woo si bés ba rek ñoom ñëpp ñu ñëw teew quoi ah. dooleel ma quoi waaw léegi tey loolu mu wax ci final bi tey waaw final bi waaw comme ni ñu koy bëree rek ñun moom amuñu problème dañuy bëre rek xam nga ku yàlla may ku yàlla may ndam rek mu jël quoi. waaw kon bonne chance Orly ok. final poids lourd Modou Faye ordinateur borom ñaaxar Doudou Sané bu Diofior waaw waaw fii ci Fatick le premier janvier 2022 Doudou Sané moo ne woon gannaaw ordi leen jàkkaarloo sandi bëggee Moda Diouf le policier le policier mannequin waaye Aliou naa ko sow borom Joal Fadiouth Aliou naa ko le Félix ziar naa la Moda copain Aliou Gueye naa ko sow ziar naa leen grand Vincent Sarr le docteur Virosa bëgg naa ko waaye sama grand Alpha Faye ziar naa la. Mamadou Faye le gendarme bëgg naa ko Aliou Faye borom Granada Doudou Sané ordinateur Modou Faye di bëgg sama papa Pa bu fim la sama grand Sam Sidine fim la ziar naa la grand Pierre Ndiaye bëgg naa ko ca Maroc waaw waaw ay Saliou Faye sama tooma borom Sobem docteur ziar naa ko Lamine tey moom moo demoon Djilass te jaar naa ko ndeysaan Lamine ànd ak Ndingi Fall ak Ibou Loul Doudou Sané ordinateur Doudou Sané ordinateur Doudou Sané ordinateur Doudou moo ñu woon gannaaw waaw ah, waaw dañoo bëri ca Ndangaan vingt cinq minutes niil Doudou Sané génnee ko ñu ñëwaat Diofior ordinateur Doudou Sané foofu Doudou génneewaat ko Doudou daanaat ko final waaye ñu njëkkee fa cappasi ordinateur moo ko daanoon kon tey lii day neexaat tey fii day neexaat waaw waaw ndeysaan di bëgg waa Kobo Ngoy 1 Kobo le docteur Samba Faye ziar naa ko borom Ndiédiène candidat à la mairie de Fimela bëgg waa Palmarin Doudou Sané ordinateur mi ñoom ne saara baade anani je na maarele ordinateur ordinateur Doudou Sané yamba yang Thank you. Doudou Sané ordinateur يوم يبني دعوة كلف على أن بيتهم في دعوة كلف وكنا نسع سمته نجو على أن بيتهم في دعوة نسع سمته نتبارد جرمت وزمنا ويورم فرقه نتبارد فتلو في دعوة أربي لومخ Doudou Sané am na avertissement waaye Odou tamit day jël avertissement parce que arbitre na bëre wuñ अभी भी आई बी सुनो आपका खुमाबी दुरुसाने ऑर्डिनेटर ऑर्डिनेटर दुरुसाने सेल्को माजने दुरुसाने ऑर्डिनेटर नहीं बेरे dina teur du du Sané ñu ngay béré waaw waaw arbitre bisul waat na combat bi diggante Doudou Sané ordinateur Modou fay waaw waaw waaye le grand Amadou Cissé ziar naa ko Amadou Cissé bëgg borom Dakar waaye ndeysaan di bëgg sama grand Ibrahima Ndong tey moo ma dalal fii ci Fatick waaw ah, waaw Doudou Sané ordinateur ordinateur Doudou Adur awat dan sedikit. Ordinateur am na dernier avertissement. ak bisi waat na combat bi. Ordinateur. Renate Durisane. Ada Mbaye Deme la ko defoon Diouf yor mooy tegal 16 wala du koy def kenn ku ne am na deux parce que Doudou da nee na arbitre lu wax arbitre sifflé waat na ordinateur Doudou Sané ordinateur Doudou Sané Dursanı na ordinateur Doudou Sané daan